asalaamaaleykum sama gars yi bienvenue sur digital informatique te dañuy ñëw ak yéen ci beneen video mooy naka la ñuy def pour activer mode sombre si whatsapp comment activer mode sombre si whatsapp astuce bu simple bu ñu leen di wan tey léegi première étape bi ngay def da ngay cliquer whatsapp moo nekk nii bi ñu def alentour bi léegi nga cliquer whatsapp léegi écran d'accueil whatsapp moo ngi nii bu ñëwee nga cliquer ci trois points boo cliquer trois points nga lire nouveau groupe nouvelle diffusion whatsapp web message important nga ñëw paramètre léegi boo ñëwee paramètre da ngay cliquer wala nga liir pour ngeen gën a comprendre compte confidentialité sécurité changé numéro discussion thème fond d'écran historique des discussions léegi ñun fii moo ñu intéressé ñu cliquer mooy bi ma def alentour bi compte première bi mooy compte deuxième bi discussion nga cliquer voilà sama gars léegi boo cliquer li nga gis thème clair fond entrée pour entrée pour envoyé ak taille police visibilité léegi mooy yi ñuy def alentour yi yooyu ñoo fi nekk ak sauvegarde des discussions historique des discussions léegi yow da ngay ñëw bi ñu intéressé mooy ñun thème clair foofu ngay cliquer léegi mu ngi nii choisissez un thème léegi ñun thème sombre la lañuy def moo nekk nii thème sombre bi moo nekk nii nga cliquer thème sombre léegi soo paree nga cliquer ci ok bi gis nga léegi suñu WhatsApp nekk na en thème sombre voilà sama gars yi lii moo nekkoon suñu vidéo tey bi ñoo leen di ñaan yéen ñëpp ngeen abonné bës close notification bi pour vidéo buñ dugal ngeen mën koo jot am benn affaire tamit bu ñu leen bëggoon waxaale mooy ñun dañuy gis ni buñ dugalee vidéo vidéo bi day am vie yu bari mais mooy ëpp mooy ëpp nombre d'abonnés yi loolu tamit bëgg nañ ku vue nga abonné un vue égale un abonné merci sama gars yi ba beneen yoon ci beneen vidéo digital informatique